أبيت عن المولى تعالى الذي رفع واني ومن

0,5 litres 0,25 litres Tchakri n'a nag pou 650 grammes pou 500 grammes pou 300 grammes so 1 kg, 500 grammes ak 5 kg Tchakri ak 20 kg pour seni xew Fo dem fekk ko supermarché yi ci boutique yi bouteille vide yi tamit am ko manam bouteille yi deful dara te numéro yi 76 623 09 49 wala 76 623 09 43 wala 77 837 54 54 ou le 76 623 09 48 Badiane ah kontaan naa de. Badiane nag mën naa maa la raw loo def. ça va alhamdulilah. naa la oh, kontaan naa tey. Badiane namoon naa la. maa la raw. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. xam naa su ma ne la bàyyi naa dëkk ana waa dëkk ba sax. danañ ma mere mere nañ la trop. xam naa moom. mere nañ waaye xam nga rek soo xasee ba nekk fii moom doo mën a génn. soxla yi njaboot gi. yaa ma gën a xam rek te man fii kër gi maak papis rek fi ne. du ma ko mën a tëj di dem. waaye nag moon naa la de Toma. dëgg la bu ñëw nga yebal papis sax. ah waaye papis mooy sama wéttal. ah li tax mënuma koo bàyyi di ñëw moo tax mu tamit ma mën mu bàyyi ma fi. mais bu ñëwee sax am fa deux jours sax. ah bi waaye ñibbi war sama yaay da lay jàmbat rek mere na la de. balaay moom ba mu ma mere sama xarit la. sa xarit la waaye da lay jàmbat fu mu toll. xam nga ne moo dëkk ah, foo nekk am fa turandoo. ak sa yaay ni mu nekkee sama xarit. Mm. ma mën a toog ba nga màgg te ñëwuma fa seet si leen xam nga ne moom demee na leneen rek. waaw. waaw yaa ngi ci jàmm rek maa ngi ci jàmm bu baax man mi tamit jàng bi moo ma fi teewoon. dëgg ba tey mais alhamdulilah. waaw moom. a ah. pare naa fee sama yaay dinaa ñëw réew tax taax. waaw pour àggale fi sama jàng parce que village moom xam nga lépp amu fa. déedéet amu fa moom. Mm. village moom daanaka njàngoo suufu mi rek fa ne. waaw na sa xol eh, ci sa wet. kontaan naa <laughs> yow moom. seet boo gëstoo rek danga may gis. tey eh, jii moom. kontaan naa kontaante koo xam ne. mais ana papis moom. papis mi ngi fi. donc naa ko nag papis sama xarit ah. daf may message daf may woo fu mu toll moom. mi ngi fi de mu ngi fi day waar rek. <laughs> xam naa su ma la ko waxee rek yàlla yàlla boo wax ne man dama. papis papis day ngi noonu papis. bu ko neex lay wax damay message bi lu ko neex lay wax. waaw. <laughs> Eh, eh, bii baa. de papis. waaw papis a ngi ne menn mi. kii du borom borom lan haram haram moy da nga dof wala li haram eh xolal man la papis borom depp depp di depp di depp rendi jegi nga may haram li haram dit man damay bëgg jommi ya, wala dama war papis waru de papis haram haram haram haram nopp day dalotina papis ak téré course fa tabaarakal macha allah alhamdulilah macha allah kay man de waxuma yooyu sax. tabaarakal xam naa ne man ngay jéem a këpp di ma leer rek xam nga xale bu jigéen bi. laa ilaaha illallah. muhammad rasulullah. haram haram haram. Euh, du sax jaar sa tur wi ndax bii boo kenn xamul turu lan la xanaa kay ma woowee Murtada Murtada. bi ma tuddee woon waaw. Murtada abdalla non non ki du papis ma xol eh Biba bayi sa dof dof léegi ngay def la la moy Murtada abdalla li lol xol man jauh la la wax papis yow da nga joge ci lu bax li nga nekkon delu soir si affaire bonne yi ni non papis bet nga ma de mi man man je rêve quoi mais la moo tax man ku taxawal kuma togal kuma waxtanal yow yaa fi nekkoon nii xaraam yaa doon solo bolo gi fii te yaa fi nekkoon lu baax te yaa ñu ñëwaat ci lu bon mais li ngeen ma mas a xamee je suis papiste ah, comme ni ngeen ko comprendre ngi la koy wax ñu bari ñi ngi la koy wax mais xam nga li ma wax dëgg la dis moi lan la kon lan la lan la yow yaa fi taxawoon naan xaraam xaraam fop suñu tur yëpp changé ko Mohamed Abdallah Aminata Fatimata di ñu bëgg rey si koñ bi tey nga wëlbatiku def sa col ko bon gii ma wax nga naan ma man a papiste numéro 10 waaye nag xam naa mm-hmm. nga dal ak jàmm rek. incha allah kër gi xam na kër gi sa kër mm-hmm. man ak sa pàppa ñoo bokk ndey ak baay. te mbokk dafa foor te yëg-yëg gi mu am ci man ba tuddee ma la. Mm-hmm. su ko neexoon mu bañ ko cee def fekk. ndax nit tuddee na ay doomi baayam tuddee ay xaritam sax. Mm-hmm. waaye dafa xam ne sama xarit la. moo tax mu tuddee ma la. xanaa bu duggantoon ak sa njàngam ba ma la joxee yàgg na waaye te yàlla indil na ma la. yàlla indil na ma yaa sama wet waaye nag papis moom ngay laaj. <laughs> papis ngi àpp na gannaaw xam nga ko rek jàmm la. papis moom daa doy xam nga ko rek jàmm la jànq ma am làq naa ko ndax moom. xam naa nag comme que yow doomu bàjjinaw nga. Mm-hmm. ah kañ nga mu def ci attention ci yow. nga di ko bàyyi xel. dinaa ko bàyyi xel nag <laughs> tooba fiiru de. maa na moom kay moom kenn mosu koo gis man kay ni ma gëj a dëkk ba moom. bi Assane di doog a réer nga gëjoon. waa ba tey lu xam. ba tey amatul benn nouvelle ci moom. ah génne nañ ci suñu xel de. sept ans. juróom ñaari at ba léegi man Assane. lu juróom ñaari fan ba déedéet. yeneen taw la. ay yow sa yaay mbaa xalaatu ko rek. sama yaay du ko xalaat ba léegi da koo fàtte sax léegi bàyyeetu ko sax xel. dafa métti de. ok day naa ah man da xam naa ne moom. sañu mën a ko ñëwal fii de ma seetal la ay kii ndax àddëkk ba moom ñoo ëpp ay kii yooyu. maaraay waaye fii. fii de bu fi ñëw war na fi ñëw mi ngi ci lëndëm gi yàgg yàgg dina ñëw ñu ngi dundee yaakaar peut-être mu ah yàlla baax na. dangaa xaw a guddee nag sonn nga. Ah, kon ñu dem ci biir ma jàppale sa bagage. waaw baax na nga tëdd dàll ba subaa jàmm ñu sotti waxtaan. waaw baax na. ma ngaa bala baax bi. ah sama turandoo màgg na waaye lii dama kontaan c'est bon d'accord pour nga comprendre man la Papis ba léegi pour nga comprendre ne ki nekkoon démb moo nekkaat tey di taxaw di wax ak yow xam laa bëgg actuellement nii sama yaram dafa tàng dama koy laaj maa ngi suus di bax comprendre xam na bu cin di bax di wañax matama ci sofa tax si ñu ngi dégg ñu ngi déggante na coolu li di jug ci kaw bu kenn xolal bu tang jër la bëgg buy laké non li mënu ma ko xoolal bu mol bu neex bu toy taxawal mais ba mu bàyyi ma dégg àggale tamit yow kessé nak la ci wóolu xolal té noir bëgg na té blanc bëgg na bu ñolé bëgg na nu mel bëgg na xolal li jëntin ma benn rek wa papis yow nit ñepp dañuy rêvé comme li nga défon jogé ci lu bon ñew ci lu bax yow nga jogé ci lu bax li ñëwaat ci lu bon papis lan mooy sa problème jigen motax nga jogi sa melokan wi nga nekkon ñewat ci lu bon li nga nekkon no papi sor nga xolal sa bopp waay. Biba ok merci. lan la. booy demal. dina dem mais dina la wax deug non demal demal demal yeen comprendre ma len quoi man parce que mënuma ñew di la wax samay bëgg bëgg nga ma ay jigen ni nga melon xoolal man yow ño bokk gem bi lima mel nga mel lima bëgg lu la bëgg. d'accord mais amna lo xamne bu lako yalla yàlla ba nga wëlbati ko suñu borom wëlbeuti la. am na loo xam ne yow waroo caa delluwaat yow tamit nag sama waa ji baax na baax na man awma temps parce que yéen mooy loolu non lii dañ ma ko doon waxaa gëwuma ko de kii babis la maa ngi soog a comprendre lii ma musuma koo gëm andil naa la jën quoi jën. lakk jën nga laal euh, nga laal ah, moom ko def si mayonnaise nag. Eh, eh wax nga dëgg de mayonnaise baaxul quoi. lan moo am si mayonnaise. këccëg eh, eh bu yow. bu jeex a jëm bi naa raal sepp ah. xam nga mu tudd. mu ñàng waaye xaw ma ko de dama waaw. sedd. booy xam nga àddinaa ngi nii heure bi daa waroon fekk yow ngay nga may fexal di ma jox quoi waaye bu jeex jën sooy. ana sama xel ba mu tëdd coom ak bëgg jën. coom gisuma ko ànd ci jën. acca li ngeen na bëgg ku ma yab rek moo tax yab ma coom ku ma yab rek coom tax yab ma. naka bëgg jiwam fu mu gis mu baax rek mu ne nii. loolu wéeni baax na de. comme. loolu da lay wax. ma ne ku la jaay jën bi. comme nee naa ko yow si amul xaalis waaye dëkk ba nag nam nam de. bawal nag lii man quoi bawal dañoo war a am yii ñu génn di di kii ñëpp ñun قلب ما قال لي نيح بول ما عمره يوم فيك بول لين وهني بول بول بول في أن يجي لعال دي لا آه ما من بول هذا كدي damay bawal bawal pire et dire fu mu mën di nekk ci àdduna ak foo mën di génn buñ fay tuutale bawal ma taxaw jug te àdduna du yàgg-yàgg ba ma dem fenn naan dama bawal bawal loolu sama fukki xel xalaatu ko deewatu ko moo gën tax gàcce la ah. ku la xam bawal bawal ah wala fii la édifié ma tax parfois ñaama ba bol bu man ndox ak yow yow maara do bol bool parce que bool bol bu mana a sañcee ak sànq ma leen yéen yéen def bol ñu bawal ñu ma fa dàq sañcee fa nek ha ah, gën maa xam àdduna dàq maa lépp man bawal maa fa gën a niir Cheikh Seydi ak ci bawal boo ne bawal na ko xeex kooku moom ak poon la poon <laughs> bu เป็นปกติดามันนี่นั่นแะเขาไม่เจนี่มันก็าก็ล้วทำมาอือฮึอยากมนเจอมาเจออืมอะไรไปเลมอนมารินัทซาซาสเป็นมารินัทตักันมารินาทสลัดอ๋อแล้วมันจะว่าจะมาเล่นนอกกันเด้อ man man mi ba ba man laa maa ngi fi maa ne ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax ak gëj a gisee. gëj ñoo gisee noo def ak coono yi. sant yàlla bu baax ba yaa ngi ci jàmm bu baax maa ngi ci jàmm alhamdulilah. waaw man damaa dem Kër Mara. Mhm. damaa sonné ba sonn. Mhm. kenn ubbilu ma affaire bi jaaxal ma ma ne naa ñu ci yow laaj la ko ba xam. wax nga dëgg def nga lu rafet. noo def nag yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax namoon naa la gëj naa laa gis. xam nga affaire voyage boo ci nekkee da ngay sonn. loolu ana waa France. ñu ngi sant yàlla bu baax maa sonnoo ci yoon bi déedéet déedéet. ana kura. mi ngi fi mi ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah sant yàlla bu baax. maa fekkoon ci yoon nii sax waaye Naara dañoo dem seen ligne de miel boobu. waaw ci lañ dem waaw. Ah. naa ngay ñëw. ko damaa dem ba këram ndax dama ko soxla. Ah. tax ma dem ba këram. moom tal na fee def mariage bay dem ah, kon daal Mara moom wax dëgg yàlla gañe na sama doom. moom daal dafa jël sama doom yàq xolam. yàq njàngam ak li ma daj ci Mara. di ko jàppale ngir bëgg sama doom ndax ku bëgg sa doom yow la bëgg ma di ko jàppale biir di ko jàppale biti lu neex sama doom neex na ko mu yàqum njàngam ne ko fu ñukk dem seet keneen waa defe nga ne loolu neex na ci xol. neexut ci xol ah, soxna doguma la sax bu ko jëlee noonu kura sama doom la ni ngi ko juree noonu laa ko juree mm-hmm. maaraa maa ko jur mm-hmm. kura yaa ko jur waaye man ñëpp maa leen ko jaboote mm-hmm. kura diggante mag maaraa ñëpp xam nañ ba ci mariage bi ñëpp yaakaar na ne moom moo doon moom lay takk proposé na ko nag pour mu nekk aawoo bu paree door a takk naaraa kure moo bañ bi mu bañee nag lii li ci xew lépp xëy na boo gisantee naaraa maaraa dina la expliquer lépp ni mu demee di comprendre xëy na dangaa ñëwee nag ak mer xam naa moo tax comprendre loolu. Euh, Babsu man li ma jaaxal mooy yow sa diggante ak euh, kure waxaatuma ci dara ba wax léegi ndax de man nga fa wala. wax nga dëgg maay booy mais nag. Mhm. Euh, dama préféré bàyyi daal. parce que si bàyyi. parce que kuréel daf may nuru jigéen ju weex parce que daal saa yu ma xalaatee keroog ni ma tontoo comme gaynde gu jigéen googu ba léegi daal vraiment awma bëggug delluwaat pour gis kuréel daal parce que dama jàpp ne la même chose laa fay fekk jour boobu ni ma tontoo neexuma dara daal vraiment te man. xam nga ma dama lewet bugguma jigen ci wex sama yaay daf may wax ne yeureum na la bu fekke da nga am jabar ju la yeureumul sama dama yeureum dama dama dama lewet loolu dal motax ma préférer bàyyi nonu daal ma sedd mais deug na li bu baax ni wax mais nak man bëgg nga bàyyi faaw nga demat te bo demé di ngi jot nam sax weex na mais gis nga jigen dina mel ben jikko bo xamne wala mel neneen noo xam ne góor dugg ci mom ba soppi ko loolu dafay am bu ma sañu daal nga dem waslu àq ba nekk ak moom moom bépp ñaaw ñaaw wala lenn lu menoon yow war nga koo mën a changé ci moom bul bàyyi te gis nga kura kër gi mu nekk am na benn xaritam bu fa nekk bu naan xadisa waaw xadisa moomu man dama ko nëbb duma la ko nëbb te yow boo demee ba jot ci kura moomu noonu man xamna dina mëna jot ci hadisa boba sax buñ dee and man na ni and di fa dem mais jappal fi nga japp après ñu dogo lijjanti kaa bee man dal bëgg na bul mësa bay bàyyi jàppare dina mësa si ñëw. waa xam nga yow yaay nga comme ni ma nek yaay. dafa neexul ci xol mu doon xalé bu ndaw. dëgg la di dogu dug dugg buntu àddunaam nga diko sante dara pour bëgg doxal sa mbëggeel xam nga bu doon keneen diko nang te man mi di yayam sax ku ma ko sant ma bañ damay xam yow bëggoo deug yow nak dama la yobante wax nga lo rafet way dama la yobante, neen mara heure bi suñu ñeenti bët yi dajee lu mu gis man lu mu dégg man ndax nak sama xolu doom la jax jaxé ndax amna ci yo xam rafetut maane té jékut maane waaw dalal rek si nga doom jo xamul ko ndey boté léegi nga koy tëkku. tëkkuwuma ko de. ankay li nga wax da nga kaa tëkku. àdduna moo ko tëkku. tëkkuwuma ko. àdduna tëkku àdduna moo ko tëkku. àdduna tëkku nañ ko ndeyam ndax la mu def. moo tax àdduna di ko tëkku. tëkku nañ xale bu am ñaan waajur. xam nga ni sa dënn di riire noonu di jax-jaxe àqu ndey ak doom mm-hmm. ak njureel moo la jàpp waa xoolal yow mu yor doom ju góor ne sa dën di rëcce mm-hmm. waxuma naa man mu yor doom ju jigéen di ko xalaatal laa nga te def maara te def maara ni sama doom. soxna ma jur ma jur man juruma bandi juruma deglu ma rek nga sa dom sama dom fayewuko heure bu ne ñew na fi su ko bëggoon a fay wala mu taxat taxate ko wala mu def ko laneen lo xamanteni day tanga sa xol bi kon bo ñewé laneen lanen nga fi fekk lu lool wa xam nga nak mom dama ko yar ci qualité. wa ba tay dama ko yar ci qualité man man duma tak xalé bu amul kilifa dama ko yar ci qualité. ma sama dom du tak xalé bu amul kilifa. fonku bopam respecté bopam ba bëgg ko. ma ngi dem te dina fi ñëwaat te nee lu mu gis man la. mané té nga dal. nee lu mu gis waaw baax na. ah man ko war na Sénégal gi nak mo metti nak té nga tak sama dom par force ah, dox dëgg ni rek la mëna mel ji yaay da ku ko am lo def du bet kenn kenn kenn kenn kenn dom ju jigéen jàngaal niwut nday jaaroy kaay xaaral ma ndaa ba ñu moom bu ñëwee dina xam ne mu koy lijjantee mbir kuraak ci ay mbokam xam naa baax na ma ci def ay naara mo naa ko sama deret na baax na may waaw nga dëgg de li nga wax nonu dina ko yombal parce que xalé jigéen ni ñaaré bo dé and ak ñom day yomb lool ki ngay andal ñu mën ko placer seen xarit ah baax kon may nga ma yok nga ma courage dal may nga ma fit xajna kon dina def le tout pour fa ah jema deugalat sama bop xaj na yàlla mën naa def comme yaa ngi ciy insister rek xaj na ñàkkul lu la yàlla lu la yàlla defal daal euh, te xaj na am nga gis-gis bi. Euh, dem fa. Hmm. te man it faaw ma jàppale si. li naan ñaara man kenn te ñett du bëri. waaw ah, loolu olof man yaakaar naa man ak yow bu ñu àndee. Hmm. sot kura. Hmm. insha allahu rabbi kura dina nekk say loxo loolu moom amul ma dem te ñëw. jëf kon incha allah naa si jéem a taxaw taxawaay bu gën a mat sëkk. dana jéem si jot kon loolu buñ ko waaj nan jéem def suba incha allah li ñu wax ne xëcc bu euh, bu dëggut faaw mu agsi mm. wala mu yendoo teng mm. nan jàpp rek bu yàgg dina baax loolu nag buñ ko waaj non du waaj doo dem bu rek def bu subaa allah nañ fa fexe mm. voilà kon baax na baax na ok tum noo def yaa ci jam ay ci jàmm. ak tangor bi yaa fexlu wa tay tey gis nga dama xëyoon génn. Hmm. am ay course yu ndaw yu ma rek la ci bi dekk bi. ok. Mhm. wa man de damaa ñëwaat rek comme yaama waxoon na ma suma ma ay fan yu néew ma ñëwaat jël sama réponse mo taxon ma ñëw. dëgg la man ma la ko waxoon. Hmm. te bi ma la ko waxee tamit li taxon ma wax la ko sama xel ak sama xalaat mu ci won jox naari pare naa pour jàppale la hmm. si kaw nga bañ ma cee teg yenn sart yu dis lii daal boo ko defee dinaa la jàppale waaye xam nga ñun ni ñuy sëyee nga jinne ni ñuy sëye bokkut ak yéen iya ni ngeen di sëye ñun ni ñuy sëye ak yéen ni ngeen di sëye yéen jinne bokkul d' accord nan ngeen di sëye maanaam ñun ni ñuy sëyee yow ya, doo ñu digal doo ñu tere te loo fekk ñuy def doo ñu aaye duma leen digal duma leen tere te su ma la fekkee ngay def dara duma la laaj lan moo tax waaw waaye ñun contraire bi la ñuy sëyee ñun dañ lay digal dañ lay tere te boo dee def lu ñu xamut dañ lay laaj lan moo tax waaw loolu yëpp dëgg la contraire bi dañuy def ñun ñun lépp luñ warloo ak yow buñ xamee ne bëgg nga ko rek balaa muy egsi ñun dañ ko indi tey boo xiifoon du xaar nga ne ma toggal balaa nga ma koy wax laa koy def soo maroon duma xaar nga ne ma indil balaa nga koy wax laa koy def naari waxoon naa la ko te dinaa la ko waxaat sëy du benn fan te du ñaari fan beneen bi ci topp dund na ay at yu bari dencu ma jabar te ñaanuma yàlla di denc jabar di tàqali ko ak moom léegi sa dernier mot yow kay laay déglu fi mu ne comme lu ma wax rek nga argumenté ma tegal ma kay doñu digal doñu téré té lo fekk ñuy def doñu ay aaye léegi sa dernier mot nga koy laay déglu léegi sa dernier mot nga koy laay déglu